Yeah. Uh huh. Yeah. Nyango ni khair, nyango ni saga, nene dade, dinyo diwaga, anda ki gens, koko idaya, nyanko ki fepa. Papa mlacha na nyanko, yo khana kiso nyango, yo bo khamon nyanko,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 et wwwcfas du 6 sénégalcom ou bien wwwe du 6 Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et WhatsApp. Yeah. Uh-huh. yeah. waaw xaar ma ci mbaar ma xaar ma ci mbaar ma waaw waa fàtte woo bopp yaboy bi utaaleel bopp yaboy de bopp moom la gàllankoor gi di àndal boppu yaboy ay man kay bopp yaboy xalam doo gis téléphone doo gis téléphone la wax ci gaaluwaale yow sa gàllal loolu bopp yaboy waaye du ko attan nga téléphoné waat nga téléphoné waat dafaat kan li nga defoon ba ba nga ñaar fii. boo ko. defee. asalaamaaleykum. naa def ku baax ça va koy seet nañ ci jàmm awa ba awa ba nekku fi lan moo tax ngay sa xiir gi nii xamoo ko xamoo ko lan la xamoo daa am lu ok maa ngi jéego léegi euh, awa ba moom moom ji moom laa koy indi dama war a jox xaalis. kon dama koy Faba. Faba. Faba. mu ne benn jeex. Faba. Faba. est-ce que xaalis Faba ñëw. man seetlu ma sa baay de awa ba laa wax ba. Faba. Faba. ça va est-ce que mu ngi fi taal. ah man loolu sama yoon naa ci de. indi daa la après sa fu ñëwaatee mu jox la xaalis. man non loolu day yàq ji baaxul baaxul ci ëw kat bi. toogal xaaku non baax na man ni ma nekk nii am maa ngi à a doo woote waat a ma xam. ah la woo nan la woowaat. non moom coupé yow man na man na laa wax ak yow ci ci ci téléphone moom mooy ut ay gàllaajam naan bopp yaboy kay loolu kay jarul ko jarul. loolu. Eh, eh, eh, ah ah. Baba da nga fay. waa kay. waxaatal. la laa wax yow. la dama comprendre la la la la lan la du dara. la la. qu'est-ce la lan la. salaamaaleykum. waaleykum salaam koy Cheikh. awa ba. waaw. moom moomu gàllaaji man la doon ëwloo man maay fara wuure. ah yow yaay fara wuure. waaw moom la léegi ma ñëw fi di ko seet. naan maa ngi woote téléphone pare gu mu mu dóor mhm. ma. ma noppi parce que benn coow. Mhm. ndax kër jàmbur du ma fa duggee ne salaamaaleykum ñu doon ñu dóor la eh, korfeñ wala ñu door la yet amatoo fa toogaay waaye dana lii dañuy gàllaaji jàmbur moo ma résister ànd ak moom nii rek awa ba moom gàllaaji te damaa war jox xaalis ci kattanu yàlla mbaa mu la nit gàllaaji euh. téléphone ah, xam téléphone di ma gaal waay euh. yow bu njëkk mooy nga gaal waay defal naa yeesa violence domestique nga def waaw waaw parce que waroon ñëw ma rek ak fu kër kër di yor diw indil ba nga xamee ne yow fa uude nga da nga war a toog sa baram liggéeykaay moom mu xamante ni moo doon def loolu lii ma lay def loolu mu fekk la foofu nga jëflanteeg yow lu mu war a jëflanteeg yow loxol noonu. déet ndoba kay bala moo ñëw ci yow dafa mu jox ma xaalis dama ne ko ñetti junni laa ëllëg mu joxoon ma ñaari junni des na junni. Hmm. waaw anam moom. ah yow doo yaay yow. yow fi nga ne ma anam moom. génnal après moom nga woo ko mu fekk la fu nga ko la nomba gi mu jox la sa xaalis nga jox ko nomba. moom waxoon ne gàllaaj gi mënuma xëy du ko delluwaat da koy yàq. Ah, te bëgguma yàq gàllaaj gi yàmb. non man mën naa génn mais gàllaaj gi laay bañ a yàq. Ah, fekkee yoon nga junni ah man ma jox la gàllaaj. Euh, mën nga génn wala mënoo génn. papa jaay ma ma rek mais damay ba ba ñàkk a jubóo ma jox mën nga génn wala mënoo génn. non mën naa génn kay. Ah, disposé disposé léegi awa ba du mu. ñaaw man mën naa kaa xaar. prix boo fay baax na maa ngi ci. mën a kaa xaar ah ah yegg soo ci sëñ bi bu ma bàyyi kii kii bu ma ba. duri damaa dem ba affaire ay ay technique laa ci am. muss doch alle. Und dann mal alle Jöfer. Krieg, krieg, das ist das. Langsam wohl. Es lekk yaa ma ko jaral ba tax na yaa gën ci yonent yi ak bëgg yonent bi li ma leer ay ku mu leere nga jàpp yonent bi jox naa la sama xol ba boole sama ruuge nangul ma yaa gën ci man kay kay kay yonent ba feeñ naa waaw fama fama sama ah sama xarit bi dama naa la. ci la ne eh, bu mu toog. ba may nekk ci biir. daan lu ma jëli si sallallahu alayhi wa sallam. Ah. mayaat ma loolu. jox naa la sama xol. Hmm. ba boole sama rugee ma yaa gën ci man yeneen ba feeñ naa mm. fi Makka yawmul isnayni ah. lii lee waral ñu way di kañ ya Seydina Muhammad yeneen eh, de li tax ma lay way du baat bu neex kay cofeel gi dafu ma sonal <laughs> man Mouhamed Alla Diop man tam ñànku wax yeneen dama ci boole waa ji way yow ñànku yeneen tv kuma salat fa aflan nafsi yow rek yaa ma ko jaral ba yaa gën ci yeneen aflantu na fi yow lekk yaa ma ko jalal ba tax na yaa gën ci yonent yi <laughs> wooy wooy ñànku njaay li ma leer ko ma leer nga jàpp yonent bi ah kay kay kay jóg leen fii woo leen fii rek waaw ndax fi laa toog. taw fi kay. ah ma taw bi ah ah ah. yéen yéen tamit jàll lu ëpp li. waaw dëgg la de moom kenn du yéen tamit. bismillah. mën naa de. maa ngi nii rek na mën naa. maa yaa ngi ci jàmm. waaw dama laa koy gi. maa ngi nii yaa ma bàyyi. yow yaa ma bàyyi waaye. tey daal xel mel na ci yow rek ma ne xaaral ma ñëw seet sama waa ji. yaa baax de. daal di koy siyaare ci ci ci yéen a ngi. maa kontaan nga. maa yow daa garaaw. yow laa koy jox. ah ah waaw. Ah. ah ma ko jox ma ma ma. ma ma sol ko ci korite gi. waaw korite gi moom boo solee lii moom dem siyaare ji mbokk yi baalante ak. ah dina dina baax de dina baax de. aleykum salaam. gërëm li ma loo ma mën sa defal ci at mi lii ma ko gën. allah ngi allah ngi. allah ngi. والدكر كما دكر الدير فراني يا وجاب المعصب الوانسلا سيدنا محمد ولا تبقي عن خيفي مطاولا سيدنا محمد بابم بامات باتم يري ولا خا ليري مي خوي جومنا بدور خي Tangkam ya taru sen na jot kenn nama Muhammad bi mu juddoo momo ngi set eh nabi takul dere takul meret ñàkku njaay xetam neex jëmam rafet betul ya tus moo ko wër Seydina eh, Muhammad jinne yaa nga naan jonni nano ah la wara khu xew xamatunu asaman asamaan dematunu ku bi dewe tas tasar kenn Seydina ya, ya, Muhammad ya, kooku mooy yeneen bee texe ku la bañ juum naa ana su ma yónnee kii di ma ne ay ku mu leere nga jàpp yónnee ci ne. yàlla na gudd fan. gerte wax la kii yow tamit nag. tëddee sa lammi nii. noppi leen noppi leen waaye tamit nag. damay génne lii rek waaye noppi leen noppi leen noppi leen. wisoo wisoo wis. ayca bari seen jooy waay yàlla na nga gudd fan. amiin ah, kon kay faa loo mën ren yàlla nga mën lu ko ëpp déwén. nit mën nañ ko naxee ci lu ne. kay mu lànk waaye yonent bi. dëgg la kenn la de. ki gën sama nday gën sama baay gën la yow mii. dëgg la de gënu ñun ñëpp. yow lu la waay jox méritoo nga ko. man sama rangoñ yomb la ah. ah, ah c'est pas c'est pas donné à n'importe qui. dof bu demee bay jooy. yonent bi xam nga ni ah ah ah. ñëpp ko yëg. do nga doon yëpp doo faak ngay doxoon dox doxoontoog loo mën bu ne nee nga sukk nga sukk. ba barki dem la toog fii ci kër nga am loo way ci moom mi lu lu lu doy waar mm. ma ma ma wala na Mustapha ay sama waa jaabi ni waa waa mare di woo Mamadou Abdoulaye ay sama waa jaabi ni waa mare di woo yere matabe sa khaya dalafay waa waa mare Bukan sama mam Nggak bisa tahan Ngegai Sekiri mami nengnya Gokai sama Kau Gokai mami nyakju Gokai sama ngegai Mami diaraju Sekiri mo Kesanu mam Kau Gokai medul balak Masa balakod Balakod mana baik, Masa karik Matau gaawal. lu jafe la def nag wax ci yonent ba yut ba yut c'est la première fois. yaa xoolal ah Mohamed Mohamed ak yonent bi nga ñëw. dangaa ñëw ci ay ngéwal kii ñànku mii lu ko yëngal yombul déedéet déedéet ay yutam lu ko génne yombul mu ko na génne mii di bàyyam bu nu wooyee rek xam na fu mu toll ci yéen man de bàyyi naa àdduna tey pare naa kii kii sama xarit la Fadou la sama xarit la kii waaw yéen moo ñu boole sallallahu alayhi wa sallam dama doon ay jàngam ma daanu daa premier way bi may rek ci laa daaru. Mm. bi may yow ay siis rek laa fekk. waaw ñëw. waaw te daanaka affaire mu ñëw fekk ma fa may ma xaalis may ma cent francs dama dama ñibbi. <laughs> jàmbaara foofu laa xamante ak moom. ba ca cent ya. waaw ñun na xam nañ ko bu yàgg. Mm-hmm. ñun dañ koo ngénte. ah te baam la noonu àndal. Alla Diop Alla Diop. laay laay la laa. lu lu ne lu ne lu ne way na ko mm-hmm. lu ne am na ko ci yonent bi. Uh-huh. mumi ama o ya safara mo leti leti leti may lo me gumbe eh eh. eh eh leti lan ko liti jëm ah, kooku di ngoyaan kat liti ko sa eh ngoyaan nga xam ngoyaan yo ngoyaan waa kaw la ko moom non papa di la way boya bo ba na walle ti wal papa كتعالوا لا يوسري سلف الأدامة فوا خمنا خمنا سيدان كلاول داري ولا برم كنا خموري ليس أخو المصف خمنا ولا خم أيد الكلا لا والعالم أيد الكلا كلا لا أكون صباح بقول له papa yoral na ma ñaari junni yoo xamante ne jox ma sama yor waaw. yow waaw ah, maa la jox lii addiya yonent sallallahu alayhi wasallam. sallam ah. fay ma si barki yonent bi fay ma si barki yonent bi moom juddoo ba léegi baax dafa war a am kii da kay addi si barki yonent moom fay na si barki yonent bi fay naa la ci barke bi waaw en ah, dix minutes yow da ngaa maye moom bàyyam dafa maa yorul loon bor déedéet déedéet dix minutes lekkuwul de dugg dugg lekkuwul in sama xaalis lekkuwul de kii déedéet delloo ko delloo mu teg ci loxo mu teg waaw mm ah da nga ko delloo neel sa papa. bor. waaw ci barke yi ci bi. kay waaw bor mënu ma kaa jël mënu ko jël waaw mënu maa fay ko. xam na dama delloo waaw waaw waaw waaw baalal faafaam ci barke yonent bi. ah. tey moom moo fi ndogo. yow dama sa yaay jox la loo ndogo. waaw kii lan moo tax ah. xaraam Guédé mënoo di wax ak ñun gëdd sa milier di ak yow bis bu yàlla sa buum bi solo oh <laughs> Uh-huh. Yeah. Nyanko ni khair, saga, nene dade, dinyo di waga, anda kigen.